partir du 24 mars 2024 lépp dina leer bu soobee yàlla su ma leen ko waxee rek loolu war naa gëm def nañ fi ay centaine centaine de parcelles ñaata hectare lañ fi lotir xam ngeen ndax xam ngeen lu ci xew benn kilifa bu ñëw ma ne ko njaaral kaso nga fekk si ma fi parce que am naa fa information mu ñëw ma ne ko élection ngi waaj a jot waaye wooyuma la affaire coalition maa ngi lay yëgal ne fii ci Mbourkat kenn koo xamante ne ci régime Macky Sall la nekk gars yi jox nañ ko ñaata parcelle jox lañ ma chiffre rek ëpp ci kenn muy samedi ak dimanche du bëgg ngeen xam parcelle yooyu fan la dugg du bëgg ngeen lu ñu guux noonu ñu teral ñu leen benn joxuñu leen fukk joxuñu leen téeméer di leen jox ay téeméer téeméer fii lañ dugg ci direction ci impôt domaine bi fii confisque service des domaines toute la journée ñu yendu di leen defal ay booba defal lañ 600 boo ci kenn nit koo xam ne ñetti société yu mu mbuboo pour jël bàyyi yooyu def ko ci turam man mii xam naa ko ci waa Thiès parce que Thiès nu mu configuré woo mairie bi dafa mairie de ville bi surtout dafa war a am ak yeneen mairie dañoo war a am réserve foncière yoo xam ne bu ñu waree accueillir des projets projets de développement na am fu ñu ko implanté ndax Thiès day màgg Thiès day màgg te day gën di màgg ndax Thiès dafa dëkkuwaay gu neex a dëkk maa xam ne na am naa fi par am naa fi parcelle jëndoon 2009 jëndee woon ko 700000 def naa ci bàyyi sama tur ndax dama ko yàgg a teg sama bët ci Thiès kon boo moytul monsieur le maire di nga am un boo xam ne defee fu def nañ ko ci mine yi def nañ ko ci pétrole gi def nañ ko ci gaz yi def nañ ci contrat yu ressources naturelles yëpp yoo xamante ne ci yéen waroon a ñëw saa yu ngeen toogee am jafe-jafe paju lekk paj seen soxla bu